Everywhere.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 ngandi ma mi nag mu ngi xewee ca dëkk bu ñu naan nduur ko fii nekk ca commune bu Kër Momar Sarr ab góor gu ñu naan deen moo fa ne tappit nopp càmmiñ bu jabaram ndax soxna si daa bëggoon a langaamu ci bagaas yi dañ koo tàmm nag bu ñuy xeex ak rek foofu la ñuy yóot nee ñu cawli li ko indi nag kaay soxna suwaa ji daa demoon Kër ma Sarr jëli xaalisam bi mu dellu seen ak ci kër gi ci la ko jëkkër gi mere daa di koy guuxal soxna si nag bi mu gisee ne jëkkër ji mere na ko te defu ko dara moom it ci la tàmbalee xultu ci la ñu waxantee noonu ba danii jóg jëkkër ji daal di koy jàpp làpp ko làpp yu métti waaye déet waaye jigéen kenn du ko dóor ma ne ci biir xeex boobu nag ci la mbir yi xewee ndax soxna si da doon jéem a yootu awraay waa ji sa nag bi mu demee ba xam ne bu ci soxna si jotee mu yàqu ci la yootoo nopp soxna si ne ko tappit ba mu dagg ay waay mat sa nopp jabar ba mu dagg gannaaw xew boobu nag soxna si daa dem déposé plainte gendarmerie fitna baaxul ba fi mu ne jëkkër ji di DN ñu ngi ko teg loxo ba defeere nañ ko ci maison d'arrêt de correction bu Louga eskay mbir mi nag fiiraange rax na ci ndax sa jabar dem ñaw nga fasal ko sa kanam dal di koy guuxal ba mu mujjee jur coow ma ne fiiraange rax na ci te nag nee nañu sëy confiance moo ko waaye tamit jigéen ñi war nañoo bàyyi ku ci jotee góor rek yootu a awram waay waay waay seet leen leneen loo leen di yootu waaye fi mu ne jigéen ko ci joteel rek ñoxor njaay mu yootu sa yawra te nag xam ngeen ne loolu ku ko yàqal góor maanaam yàq nga tuq si ngalamam attention attention waaye nag góor guy door jigéen moom luñ ko def baax na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Tuuba ca quartier doy na war ab soxna la fa ay dëkkandoom dogal jaale lañ sa te kanam gi cëy mim réew soxna si mu ngi wuyoo ci turu kaajon at toll ci ñaar fukki at ak ñaar moom daal boutique ba la doon ngir jëndi këriñ ci la ko ongom at yi toll ci fanweer dogaale bett ko ginnaaw naka noonu doomam ji mu àndaloon moom ongom di ab xaleb mineur bu am 14 ans lañsat daal di lañsate kanamu kaajoon eskay ji sang ko ñu yàqu kanam gi yàqeet ay waay tel meer tel fii ci loolu la kaajoon demee ci ab structure sanitaire ñu faj ko ci la utee certificat médical ut plainte daal di koy déposé commissariat spécial bu Touba di toppee ongom ak doomam ji ko lañsate pour cause blessure volontaire ba ñu mujj leen a defeere ca tribunal grande instance bu Louga aljuma bi weesu <laughs> waaye fitna baaxul te moo ne nee nañu ongom ak kaa jonn mi ñu lañ sa ay xaritu benn bakkan lañu waaye nag seen diggante li ko tas mooy seeni ay doom ñoo dëkkee woon a xeexoo ko xuloo ci loolu la ñu demee ba kenn bëggatul gis sa morom bali xew mu jee xew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca yëmbal benn braak doy na war ab enseignant bu doon jàngale ca institut alxuda moo fa doon yàkkataan ay xale yu ndaw huit ans neuf ans ëpp tëlaw waa ab enseignant buy wuyoo ci turu dee at yi ci ñaar fukk ak juróom-ñeent moom la ñu bett le premier avril bi weesu ci ab xale bu am neuf ans ëpp te lëw te nee na ñu nag def na ko ci lu toll ci benn fan ñetti xale yu ndaw ma ne kii buñ ko génnewul école bi dana yàq xale yi de directeuru école ay wax de nee na aade moo doon yàkkataan xale yi te bi ñu laajee xale yi ñu ko def dal di nañu koy dëggal benn xale bi nee na ko yóbbu ci néegu professeur yi summit pantalam di ko ko def askay pee eh, saw di ab jàngalekat bu fa nekk tamit nee moo bett mu teg xale wi ci diggante ay tànkam waaye kii boo leen ko génnewul école bi dana yàq xale yi de es di xale bu am huit ans tamit wax na lu ni mel ak a di ab xale bu am huit ans ay waaye ma ne dee leen seetlu xale yi laa wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax waa association des consommateurs nag ñu ngi artu sénégalais yi ndax nee nañu sénégal moom saa bu koor gi jibsee ni ñuy lekkee ci koor gi war nañ koo xoolaat sénégalais yi dañuy teg jinjeer teg soow teg bisap ñu naan déeta waaye ñu teg laax teg fonde jotee teg di xareer reer bu pare bu dog jotee ñu jàpp ko am njaay joxal jóob am njaay joxal jóob loolu nag buñ ci wéyee moom ak corona bi mun naa indi musiba mu doon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz